asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 19 novembre 2020 ñoo kin ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko wala bokk muy suñu lamb wala record ku ci nekk rek tey yëglikaay am na fu ñu ñëw waaye bu dee suñu lamb moom fa la njëkkee fa mu xëy ñëw moo di diggante Modou Lo ak Ama Baldé seen combat ba nga xam ne daal xaw na yëglikaay bi nag ne na waarok énergie daal bëgg-bëgg bi ñu am benn la maanaam combat ba ñu bëre ko ci li nga xam ne nii moom mooy mois de janvier maanaam premier janvier 2021 daal loolu la waarok énergie bëgg la bëgg daal ci la bëgg maanaam seen mbër mii di Modou Lo le roi des arènes fas yéene ndaw ba ca Pikine ñu defante sunu làmb xëy tey wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer dem sunu làmb wala ñu des fa jàll record mel ni ki nag démb wax ji jenn la woon maanaam réunion bu njëkk bi bureau bees bi nga xam ne nii ñoom ñoo ñoom ñoo fi nekk yore làmb léegi te Bira Sène nekk ca bopp ba jiite ko mel ni ki nag la ñu yëgle kaay yi wax la am ba des daal mooy mesure yu njëkk ya nga xam ne nii yu fort la yoo xam ne Bira Sène jël na ko démb mel ni ki yëgle kaay ba ñëw na wax ñu ko moog équipe li am ba des daal maanaam lu jëm ci wàllum nag wàññi la nga xam ne nii moom moo di ay licence daal moom lañ njëkk a dogal démb jël ko comme ay dogal boo bëggee dégg-dëgg licence promoteur yi ku ne xam ne ne trois cent mille francs lañ doon fay waaye jël nañ ko ca trois cent mille francs ko fa nga xam ne nii moom moo di ca trois cent mille beneen bi ci des tamit di ay promoteur u cent yi ñoom cent mille francs doon fay pour am licence léegi wàññil nañ leen ci juróomi junni maanaam soixante-quinze mille francs la da seen licence cinq mille la woon léegi mille francs la mel ni ki nag daal kon démb moom soo bëggee dégg-dëgg fa nga xam ne moo doon ca arène nationale fa nga xam ne fa la ñu doon defee affaire daal daa mel ni kon mesure yu njëkk ya yëglikaay yëpp xëy nañ tey wax ñu ko muy record muy sunu làmb bira seen daal jël na la nga xam ne nii nag ak équipe ba mu àndal ñooy ay mesure yu bees yi nga xam ne moom lañ jàpp ne moom la ñuy yeneen mbir yoo xam ne nii ba tey du sori mbir mooma yëglikaay bi ñëw teewaay booba mu Yékini ak Doudou Diagne ko ñoom ñaar ñii daal moom seetlu nañ leen le gisu leen leen foofa wala boog tegee su leen fa ay bët maanaam daal ñëwuñu woon Bira Sène nag mi nga xam ne léegi moo jiite làmbi réew mi moom boo bëggee dégg dëgg sunu làmb ne na nag jóge na ca Kaolack léegi nag fi mu installé wu dëkk si fi moom mooy Ndakaaru Njaay gii daal fi la Bira ñëw léegi sañc fi loolu yëglikaay bi moo xëy tey dinu ko wax moom Bira nag CRC ba ca Kaolack nga xam ne moo ko jiite woon moo kañ toftal moom di premier vice président di Maysa Njaay jiite nga xam ne moo nekk ca yëglikaay baa ngi ñuy xamal ne daal li am ba des fi mu nekk nii daal gaa ya ngay xool nag ñan ñooy jël seen

daal li am solo daal wala boog li am daal mooy fi mu nekk ni daal ñu ngay def ay jàngat ak ay xool yoo xam ne ni daal moo jëm ci wàllum maalam daal étudier mbirum gestion ma nga xam ma ba tey moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb koo moom bokkoon na ca bureau ba ñu ko muy Balla Gaye Ndour te sunu borom bi jël ko nag mu wuyu ji mel ni ki démb ci àllarba moo nekkoon ñetti fan yu ñu ko doon ñaanal fa nga xam ne ni moo doon ca géejawaay fa nga xam këram réaction na nag bëri na fa waa lamb tamit kenn desu koon ñépp a woon guy gi moom la mu xam ne daal ne am nañ yaakaar ne per Balla gay moom dem na àjjana loolu daal mooy waxi guy gi ndax na jàpp na ne ku baax la woon ku yaatu woon xol ku daan dimbali ay doomu aadama daan jàppale ñëpp Gabar Singh tamit wax na lu mel ni ki noonu nee daal li am solo daal mooy ñi nga xam ne daal moom moo di mbëri Géejawaay li fi Père Balla Gaye di bàyyi daal Balla Gaye boog numéro un lam fi bàyyi nañ ko jéem a topp te ko Pape Thiam tey di ëmbër dëkk ca Géejawaay nee na Géejawaay ñoo ñàkk koo xam ne daal ku màgg la ci ñoom ñoo koo xam ne daal ku réyoon la fi nga xam ne mu di ci géejawaay Alioune Seye 2 tamit lu mel noonu la wax nee daal ñu ngi koy ñaanal yàlla daal yërëm ko te jéggal ko doomam nag di Youssou Ndour mu li nga xam ne papam waroon na ko def ci làmb te jotu koo def xam ne nii moom mooy doomam def ko ci la nga xam ne nii moom moo di làmb ji ba tey sunu làmb moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu demee ci Leewtoo TV mel ni ki daal li am solo mooy démb ñëpp ñu nga foon Sa Niass wax na mbër ya wax nañu ñoom Sokana Batika ku ci ne daal joxe nga sa xalaat ñoom Baye Mandione ku ne wax na daal sa digganteeg paa ak taxawaay ba nga xam ne ni moom la amee woon ci làmb ji mel ni ki daal démb kon loolu moo amoon fa nga xam ne moo di ca géejawaay ba tey bu xam ne ni moo di ca record record nag moom nee na am solo daal wala li ñu war mooy di am daal wala bokk ka nga xam ne moo di Alioune Sarr ginnaaw fu ñaar fukki at ak juróom-benn yoo xam ne jiite na ko làmb ji ginnaaw ba mu bàyyee nag ba joxe leen nga dem ne na daal la mu bàyyil CNC bi waanaam ñu jël place ci kees kees ga fukki million daal la jot a bàyyi ci am xaalis boo xam ne kaas la yëg bi dina ko xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal loolu moom mooy la nga xam ne nii moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi nga xam ne ni ñoom ñooy wax ci mbirum làmb ji waaleykum wa rahmatullah mbokk internet Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen tey nag ni ngeen ko xamee ñu ngi ci alxames maanaam jeudi novembre 2020 yi moo xam sunu lamb la moo xam record la Leewtoo bu dee sunu li mu ñu xëy xamal daal maanaam daf ñu xëy wan Ama Baldé ak Modou Lô di ne nag seen combat daal combat royal ba daal yëg li kaay bi ne daal li am ba des daal mooy Rock Énergie moom daa mel ni mois de janvier la ñu bëgg ñu bëree combat bi maanaam le premier janvier daal la Warok énergie soxla ñu bëree boobu combat ah muy combat boo xam ne yàlla na mën a am su ci date boobu nga xam ne moom lañ ko soxla wala boobu ñu ko bëgg ñoom parce que tamit nekk na boo xam ne ni defe ne Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar te mu am kon defe naa fii ak euh, mois de janvier boo xoolee parce que mën nañ ne benn weer moo fi des ak ay quelques jours comme ñoom ni ni ko yëglikaay bi waxee boo ko jëlee tey nga compté ko ah ne ma nag fii ak booba du fi am waaye xam naa daal pour mu am fi tamit dana xaw a jafe parce que olof dina ko faral di wax ba du yéen waaye xam na lu bopp attan parce que làmb ji dèjà ubbeeguñ ko définitivement ba xam ne tey dat yi nii la war a deme deme nii deme nii te yooyu yëpp dèjà ah, bu amee bu ñu ubbee làmb ji dinañu xool dat yi mba promoteurs yi nga xam dañoo tëggoon ay combat te jotuñu koo bëre ci saison daaw bi corona bi ñëw ak ko yëpp des na ko étudier ne nii ah dinañ xool kañ lay a a nekk waaye daal ñoom seen bëgg-bëgg am ña nga xam ne ni ñoom ñu équipe bu beesam bi daal ah li am nag mooy fi nekk nii moom jël nañuy mesure yoo xam ne ni yu bees la ci seen réunion bu njëkk la njëkk a nag ci mesure yi ñu jël mooy mbirum ay licence la njëkk a boo xool licence promoteur ca la bokk licence su promoteur bi licence su manager licence su mbëru lutte avec frappe lutte euh, sans bi bu ci nekk nag mesure yi ñu ci jël defe naa amal na solo lool seen i borom ya koy dagg parce que tey promoteur bu doon dagg licence trois cent mille ñu dindi la ca cent mille francs ngay dagg ba tey waaw waaw ñooñu waaw loolu la leen wàññil cent mille francs ci seen trois cent mille muy deux cent mille kon léegi la u cent xel di fay manager bi yoroon mbër mi di ko utali combat yooyu daan fay licence am cinquante mille tey moom itam mu ngi fay ñaata wàññil nañ ko mille muy fay trente mille francs pour jënd licence boobu avec frappe bi daan fay dix mille francs pour licence ñu dindil ko ci la nga xam ne nii moom mooy cinq mille muy cinq mille kon lay jënd léegi licence mbër yi nga xam ne tamit ñoom ñooy yëngu ci sans frappe bi seen licence cinq mille francs la woon léegi ñu wàññi sa deux mille muy trois mille francs mel ni kon loolu ay mesures la yoo xam ne nii ah mën nañ ah, ci lu lu maanaam lu baax la parce tamit prix yi moom seeraay yu njëg moom amut njariñ li am solo nag mooy xool prix nuñ ko mën a defare ba wàññi ko defe naa loolu lañu def tey muy loo xam ne itam ci ci li ñu gisaguñu teg ko pas boobu moom vraiment bu ñuy saluer la boo xam ne la tamit vraiment am na solo lool lool lool mu mel ni kon Bira Sène la def démb ak ña nga xam ne ñoom équipe bu bees ba ba tey bu ñu continuer record tamit ñëw na ci lu mel ni ki noonu wax na ci Bira daal ak i mesure am yoo xam ne ni yu bees teq la yoo xam ne ni jël na ko mesure waaw waaw waaw mesure yi daal jël na ko juróomi mesure yoo xam ne ni daal mooy comme li ñu leen limbal léegi wàññi na daal mbirum xaalis ma ci ay licence bu baax a baax a baax ñu ñaan nag yeneen yi nga xam ne ni ñoo ciy topp tey tamit nit ñi la ñuy gën di xaar rawatina ahlu làmb mooy saison bi kañ lay ubbi loolu nag dama naan tout CNG moo ko déedéet parce que li tax mooy état moom moo jëloon ay mesures que ni lépp luy ndaje public dañ koy dakkal ndax coronavirus bi état boobu nag ñoom lañuy déglu defe naa ñoom bu ñu nee dindiwaat nañu mesures yooyu dina tax làmb ji mën a ubbi leneen ak leneen mën a ubbi ñëpp maanaam stade yi buñ organisé nit ñi mën fa dem te defe naa loolu néew ñu amagul demee boo xoolee ñu ngi gis ci dëkk bi ay ndaje. ay xew ak yeneen ak yeneen kon defe naa itam war nañu soral daal naka làmb ji fi mu nii itam amateur yi bëgg nañ mu ubbi waaye lépp rek nañ ko jaar fi ñu ko war a jaar ba nga xam ne su ñëwee kenn du ci gaañu daal loolu daf ci am solo ka nga xam ne ni moom moom moo jiite woon làmb ja di docteur Alioune Sarr nekk fi 26 ans yore woon CNG bi record ak suñu làmb xamal nañu ne daal moom nag ginnaaw bi mu fi jógee daal la mu bàyyil Bira Sène ci xaalis maanaam 11 millions la yëglikaay yi noonu lañ ko xamlee daal ne nañ ginnaaw 26 ans yu mu fi toog daal wala boog ci 11 millions la toll boog maa ngeen jégal ma fukki millions ak benn la fa bàyyi arbitre ñoom itamit seen duggalaat leen ci biir làmb ji ñu arbitré muy ñoom si toondu rek ña mu àndal daa mel ni loolu tamit gars yi ngi koy étudier waa commission discipline ñu ngay étudier booba dossier étudier ba nag lañ ciy ñaan rek defe naa tey moom la Sénégal yëpp di ñaan mooy arbitre yooyu muy ñoom Sitor ñoom Babacar Diouf ñoom Malick Ngom yaa ngi dégg ñoom Dramé ñoom ñëpp defe naa ne tey eh, ku ci nekk rek ci askanu Sénégal waxatuma sax kuy dund làmb mais sénégalais ci boppam ñoom tey boo leen doon laaj tey ndax bëgg ngeen ñun jikkaat wala duñ jikkaat dañ leen naan ñu ñooñ jikkaat wara su leen topp dara kon defe naa yéen ñi nga xam ne doon ñaxtu ngeen jéem caa xool nu ngeen cay jàppe ba mbir yi mën a jaaroon parce que tamit kuy liggéey ci béréb ku ne am nga droit Mansour kat bés jot nga ne sama condition de travail bëgg naa ñu xool ko boo jàppee ne mbir yi tegewul ci aw yoon parce olof ne na ànd moom ñaar a koy yàq tegelees man ñu bañ ko ak tegeloo ne kenn mënu ko yooyu dana yàq ànd yooyu nag yàlla nañ ci yàlla musal ba tey bu nu continuer ak père Balla Gaye Ndour mi nga xam ne génn àddina bërki dem nag àllarba mu mel ni waa làmb yépp a nga woon këram ca Géejawaay doon ko ñaanal ci ñetti fan ya mu ni kon kenn manqué wu kon dem kenn parce que ñu ci profité nag di ziare ah sërifu laayeen bi dem wax na fa wax ju ama am solo waxtaan woo xam ne defe naa ne dem ku fa teew sa xol tooy na te itam kooku moom dey gis naa ci moom loo xam ne bu ñëpp meloon ni moom Sénégal dina doon benn ndax nag ku ne xam na ne maam la maam maam maam Baay Laay mooy maamam waaye bu toogee ci tànt di waxtaan fu mu dugg ci këri diine yi nga yaakaar ne fa la bokk te dana fa wax loo xam ne ni ku fa nekk da nga yëngatu dem yëngal na ñëpp ci Njaasaan ci ba ci Baye Ñas ci Maam Maodo ci Cheikh Ahmadou Bamba ku ne kon kooku defe naa itam man man de def naa ko dem laay ma sa toog ci jotaayam yàgg maar daan naa ko gis ci ay vidéo waaye wax dëgg yàlla sopp naa ko gën naa ko sopp sax waaye def naa ko royukaay def naa ko idol fii laa bokk ak fële loolu lépp amul solo ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ay sénégalais ay jullit la ñu yaa ngi dégg ku ci a a na ba rek ci ba tey rek ñëw na ci CNC bi ak Aline Sarr bi nga xam ne tamit li mu fi bàyyi dégg ngeen ko wax nañ ko léegi mooy 10 millions daal lañu lañu la ñu record wax waaw record moom 10 millions la xëy wax waaye li li li am foofu tamit am na benn différence parce que bu ma gisee suñu lam 11 millions laa fa gis record moom nañu 10 millions waaw mooy nag ñoom ñi ko gëstu xëy na xam nañ fee abu nduur a gëstu loolu fële tamit kan moo gëstu loolu la wala wala Iba Kane wala ku fa nekkoon dem est que du sama waajo la tout puissant dembele <laughs> borom suñu làmb kenn du kooku yàgg mar dembele le tout puissant waaw non la borom ginnaaw raay ñoom ñoom moom moo def loolu fële abu nduur waaye loo ci mën a dégg daal jàpp leen muy onze wala dix daal xam naa xaaj ba kon ci la toll di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di wax que comme ni ñu waxee rek ah mënta ubbi donte rek ni ñi nga xam ñoom ñoo yilif réew mi ñoom xëy na yéen mesures ñoo ko parce que CNG tamit démembrement la ci état boo xam ne ministère des sports ñoo ko teg moom moom moo ko teg fa mu ne kon di nuyu Bira Sène di nuyu ñoom Maysa Ndiaye ñoom Abdoulaye Ndiaye Pape ah Isabelle Sambou ñoo ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi nuyu ñëpp képp ku ne ci biir kuréel bi rek ñu ngi lay bëggee di la ziar ak suñu papa Manga di leen ñaanal yàlla équipe bi nga xam ne ni daal moo fi nekk yàlla na doon équipe bi gagné yàlla na doon équipe bi defar làmb loolu lañ leen yéene te itam vraiment loolu la ñuy ñaan parce que su amee làmb day defaru rek yaa ngi dégg di insisté tamit gis naa tey Kandji production wax na ko 2STV que ni ni ñu état bi la interpellé rawatina le président Macky Sall ancien gloire yi nga xam dañu fi nekkoon doon pratiquer sport bi di làmb xëy tey dem ba màgget bàyyi làmb ñu gis leen fa ñuy mujj ci ay jafe-jafe ci ay feebar am ay problème te am na ci ñoom ñoo xam ne ñu ci bëri défendre défendre nañu couleuru réew mi maanaam nekk nañ ay international défendre Sénégal fu ne kon defe ñooñu dafay baax bu ñu tolloo fenn fi état épaule leen gën leen a jàppale ba nga xam ne difficulté yi même bu feebar ñëwee tamit xëy du tere ñu maanaam dinañ am koo xam ne dina leen mën a taxawu ba nga xam ne seen condition dina gën a baax loolu dañ ciy gën ñaaxaat rek di nuyu Kandji production parce que man tamit ay kàddoom am na solo trop trop di ñaan Sénégal yàlla na fi bu baax a baax a baax a Fela Asi moom tamit suma xarit di suma soppe depuis Nouakchott Awa Diop bu Balla Gaye de moom tamit nekk ca Touba moom tamit di soppe tuuti Yaay Sarr moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di soppe nekk ca Espagne mais actuellement mu ngi Sénégal mu ngi fi nga xam ne moom mooy ci Mbour géej di ko nuyu di nuyu borom këram di nuyu tamit sama rak suma xarit Serigne Ndiour moom tamit mu ngi woon Italie mais actuellement mu ngi Sénégal maa ñoom ndongo Fall sama waaja duma ko fàtte bawol bawol bi doomu Jurbel maa ngi koy bu baax a baax a baax waaye di nuy koo xam ne nag mooy Omar Tawa borom marsa salim doomu ndey saali xulle yàgg maar di la ziar di nuyu Mansour di nuyu tonton Diaw taalibe Cheikh borom ADN le futur maire de Sasalim maa ngi koy béggee bu baax a baax di ñaan Sénégal li ñu fi yàlla def jàmm